لا إله إلا لا لا إله إلا لا
لا إله إلا لا لا إله إلا لا
لا إله إلا لا لا إله إلا لا لا إله لا إله إلا لا لا إله إلا لا لا إله إلا لا لا إله إلا لا لا إله إلا لا لا إله إلا لا
إلا لا
mooy genn gaal benn capitaine lay am mais genn gaal du am fukki capitaine ñii gungey gune di samay doom di samay jarbaat may jàng dañu war a ñëw toog jàkkaarloog man bu ñuy woyee ñu woy waaye fa la ñuy dem toog teg la seen tànk bu ñu yëkkatee baat boo yëkkatee baat ñu lànk di xëccoog yow baat kooku jaadul Cheikh Tidiane ci la ñu tëbbe mais Alaaji Maalik it bëgg nañu ñu xam ko liggéeyu Maodo bu rëy bii ñu dugg ci naroon ne dafay tey nit ñi loo xam ne lii suñ ko déggatee Alaaji Maalik a ko wax ñu tey tuuti ñu àggali ko juróom benn way rek la te waxoon nañ leen bu ñu àggalee ngeen tooyal xoli nit ñi parce que ñeent fi daje ñi bëgg a woy wu neex ci seen xol dinañ ci am tiyaaba ki ko woy am tiyaaba ak ñi bëgg nag gàggantiku ci seen téere ak seen xam-xam pour jaamu ci yàlla ak ñi bëgg a xam alaaji Mali li mu liggéey mooy lan nañ sedd ñii buñ noppee ngeen woy ba ginnaaw lu waaye daal yéen ñi may sant jàng maa ngi leen di wax ne fu ngeen ma ooti jàng te duma fa dajeeg koo xam ne dina ma jox respect duma ñëw ñii ñu day ni ñoom laa yor maa ngi dem fa ma nekkoon fii sa jërëjëf kee ma kee ma pikki kee ma pikir kañ lañ ko yónni ci la ñu ne ku fi jógee ëllëg ñu ne kañ la ñu yónni nabi nga man koo wax buñ ne la fan lañ ko yónnee nga man koo wax buñ ne la kan lañ ci yónni nga man koo wax buñ ne leen nan lañ ko yónnee nga man koo wax du noonu ñu ngi tollu kañ lañ ko yónni Maodo ne men ba di taa in ginnaaw neuf wala amin yoo xam ne fanweer ak ca kanamam muy fanweer ak juróom-ñeent loolu nag ay at la ma dugg ci weer nag su ma sittate as oru ngi toftal juróom benn weer fanweeri at ak juróom-ñeent ak juróom benn weer ca la commencé nag ñu di ko woon actualité yi alaxira di ko woon nag ay irxaasaat boobu mujisatu amul mujisa irxaasaat kirama ñett yu bokkul la mujisa mooy di la signaler li nga nar a doon ak irxaasaat mooy di la signaler li nga war a doon te doona goo ko moo di fuuy dañ fi war a def fondement defaguñ ko ko suñ ci tegee fondement fuuy ba réer buñ ci tegee taax nag fondement ba réer fuuy ba réer taax bi nag mooy mu gisatu li nabi daan gis avant mu nekk yonent bi mu nekkee yonent gisatu ko daan na wax ne man day côté yii am na xeer wu ma daan nuyu waroon naa koo xàmmeeti côté yii am na garab gu ma daan nuyu waroon naa koo xàmmeeti fekk booba irxaas la woon Sidi Hadj Malick wax na ci noonu yi ba soxla woon ngeen woy ko bañu naan waaw Maodo dafa wax ne wa islaaluhu fi daxiiri keral gañ ko doon keral bu tisbaar jotee ak bu njolloor jotee lu tax keroog ba mu riñaanee gàddaay dem medinatul munawwar ñu toog def réception bi ba noppi xabe wuñ ko moom Babacar ku ciy nëbbi waa medina gis ñu leen lu bari sida bi ba kat daana voyagé mais na bi ñetti yoon la voyagé benn bi bi mu amee sept ans la benn bi mu amee dix huit ans benn bi bi bi bi muy dem ca Maysara ci vingt ans vingt et un ans ci la gëjee voyagé bi mu ñëwee nag tolloog Ababacar ñu niroo maase ñu naan ayuhumul mapus ku ci yónnent bi ku ci yónnent bi fekk na bi teg ko ci wetam boo naaj wa tàngee ba laal na bi dafa jóg moom Ababacar fab kaala boppam mbaaral na bi ñu naa kon kii mbaar mooy àndandoo bi ki ñuy mbaaral mooy waaj laajkat yi nag ne ana wi booba jamono ana niir bi ko daan topp Maodo na niir wa irhaas la woon fuuy la woon ak fondation bu tax taxawee day réer léegi mujj sax rek am bi mu amee nag bi mu desee six mois la commencé nag ñu di ko xe- di xelmati yooyu bàyyi may wax ak moom xeer yi wax ak moom dara du ko interprète nabi duñ ko interprète ci dara fi mu ne bu fi ñëwoon boo waxee moom olof mu tontu la uutee jamiul kawaan faktasartu bi arabia dégg naa làkk yépp dama doyloo arab bu anglais ñëwee mooy wax ak moom bu français ñëwee mooy wax ak moom bu law bi ñëwee mu wax ak moom bu pël ñëwee mu wax ak ñoom espagnol bu ñëwee mu wax ak moom suñu paree bu bàyyi may ñëwee mu wax ak ñoom buñ paree jamaa daat yi mu wax ak ñoom bu tey mu wax ak malaaka yi bu ñëpp dégagé mu wax ak yàlla salli ala lawika almahfuz afrafi min lawil mahfuz mooy Moustapha bu alaaji maa ngi naan yal na yàlla julli ci lawil mahfuz bul defe ne lawil mahfuz bii nga xam ne bu suqraa la lawil mahfuz ñaar la lawil mahfuz suqraa mooy bële ci kaw aras ñu di ci jëlee résultat yi di indi lawil mahfuz kubra mooy rasulullah rasulullah moo ëpp xam-xam lawil mahfuz ndax lawil mahfuz ngi commencé ci aadama ba ñu taxay suuf ngeen màkk ne dafa jàll ba bat sàq jàll ba taxawaay bés pénc jàll ba bés pénc tes mu jàll ba ku ne ñu installé mu jàll ba ku ne xam fa mu nekk moo tax mooy lawil mahfuzul kubra nuun wal qalam wa ma yashturun nuun wal qalam wa ma yashturun addina yépp xam-xaman ci ëpp wala moo ci gën a neex ut matériel bu tuuti ngay am ñetti ñetti yëf rek la daa pilim këyit nuun mooy daaj wal xalami mooy pilim bi wa ma yashturun mooy këyit gi xalamul xalamul laxlaa dafa am mooy nabi ni lawil mahfuusul kubra am xalamul laxlaa mooy ruul Moustapha wallahi ma tuub ci chol mooy aynu rahmati rabbaniya yaxutati almutaxaqiqati alaaitati bimarkasi lhurumi walmaani mooy nuru akwani almutakawinati alabbani saahib alxaq rabbani saahib alxaq rabbani xam nga mooy kan albarke lastaay fu mu ko defee bi musuunil arbaxi ba mu sottee ba sebet maali atan li kulli mutaxaadin moo xam buhóor nga yor wala awaan juróom benn weer yooyu lay gis alaaji Malik laaj ñu la juróom benn weer yaa noon xam nga kañ lañ ko yónni yónnante la ñuy laaj nga di wax min ba di taayin mu ne ah da ngeen bëgg a xam kañ la takk garab bi ñu ne waaw mu ne la
هدى ورحمة إذ بات جسر الكرام صليا يا إلهي واجزيا أبدا أن محمدا المهتدى
والله أرسله ودا ورحمة للعالمين كان لا من اسمع دا جسلون ما وح وح بي بلا وهم ah da ngeen di laaj kañ la takk garaat bi ñu ne waaw si mu ne wa arsala yetle na dindil alsaxeet googu nag daf ko taxal ci maal mi ak maful mi la boole wa arsala yetle na ngay wax ku yónnee laawu yàlla ku mu yónni wu Moustapha fan lil alamina ci mbindeef yi lan u dem ngir jubbanti leen wa rahmata wa ma arsalnaaka ila rahmatan lil alamina bu noonu Maodo kañ la nag mu ne Isma Daa ba nga xamee ne wéy na ci atam gës lum chiffre lu ma dicté la nga calcul mental jim trois la racine sept loo am lamara trente quarante gisaw loo na xëy na si daaj malik jës lu mooy firi ëkkub nepp nepp sëmmiñ mënalu ko dara soo ko taalee du am at di takk ñuy tudde nag fonkol moo am quarante ans jës lu Maodo def ko nag istixaara def ci nag tawriye utal ko baab bi ñaari prix mën ngaa wax ne isma daa baa nga xamee ne wéy na jësloon ak i ponkal waaye déedéet da nga naan isma daa baa nga xamee ne jas wéy na jasloon chiffre yi jasloon muy quarante ans looloo di kañ la waaw fan la nag waay
بشهر المعظم لأبرار زرعان عشرون من أمم صليا يا إلهي واجزيا أبدا عنا محمدنا المختار بالقدم
Babacar da ngeen noon jàng yi kaar jigéen ñeeg yéen ci ko bokk waaye ñoo ci ëppale am point nag boo xam ne ñetti way rek juróom-ñeenti way laa bëggoon a firi pour toucher leen parce que diine ji dafa yàgg ci seen loxo di nga gis léegi fet boo xam ne bi ku ñu wax xadijatoo ko def ak Moustapha booba ana Babacar booba ana Aliou booba ana Omar booba ana Ousmane ana tël ëttu booba ana Subayru moom moom la ndaw su su si wër na na bi dix-sept ans te na bi du dara moom du dul jeex ànd ak moom rek bu soxla jotee mu soppeeku di jëkkër bu service jotee muy jabar waaw bu soxla jotee Xadijatu soppeeku di jëkkër bu service jotee mu nangoo doon jabar bu kayitu lamp ñëwee mooy fay kayitu ndox bu ñëwee mooy fay mooy fay imp loolu moo di jëkkër ji bu tilimee mooy fóot bu xiifee mooy togg akbar bu soxla jotee muy jëkkër bu soobee jotee muy jabar ndaw soosu ñii di doonoom kaar ci laa bëgg a tuusi rek jox xale yi ñu yee ñuy gël te it maa ngi leen di wax tuuti buñ dee dee ci way bu leen tàyyee def nii am na juróomi ngëneel mat naa wax premièrement dina gindi waykat su bëggee wàcce ruut boo fitt xoo rek mu tegaat ci ba nga gis baram ñaareel bi day dàq nga mint ñaataango ñetteel bi day yee ci fes ci yow boo nee réer la mu ne tërët ñettaango ñeenteel bi bu ñuy woy ne bi nga naan nii waxuma xalam de waxuma kooraa mais bu dee woy ne bi nga naan nii say baaraam a ngay dal ci bunti ajana kom kom te dinañ la ko ubbi ñaataango ñeentaango juróomeel bi mooy bu ñuy woy muy safaa ngay def nii doo amee loxo buy metti mukk kon dee leen def nii baax na ci yemmi isnayni ba si altine lañ ko yónni am na kilifa gu mag gu ne ci dëkk bi def na sax mu ngi ci sunu ins- euh, institut bi euh, euh, Babacar xale yaa ngi ciy def lu rëy rëy daaw da soo sunu xale bi bërki démb cinq cent mille la joxe Dudu Diop cinq cent mille la joxe bërki démb xale bi lay Alsaan Alsaan Diop jëli Alsaan Diop joxe na Njaay deux cent cinquante mille am na benn colonel bu ne bu kenn wax turam joxe na fi deux tonnes fer ak trois tonnes béton seen doom Maktar Diop vingt tonnes vingt tonnes ciment la joxe boole ko silu si àllaa ji bu rafet booba falaguñ ko ministère bii de André Sonko cinq tonnes la joxe booba falaguñ ko ministère maa ngi xalaat ne ci barke institut bi mën nañ cey àggal jumaa Tiwaawan àggal ci kër Seydou Nourou Taal euh, muqaddam yépp ku ci ne am ci spantere billaay matériel bi boo gisee rek waaw te ñu ñu am na ñu ne bu kenn wax seen tur yaa ngi li ma doon wax bu ñëw foofu sax waaw kay waaw kay seen ku baax kii déglu leen ko subaana wax di jëkk na bi daana ko gaaw tudd lool te booba rot nañ ko mu takk xale bu ndaw bu ñuy wax Aïcha bi mu takk Aïsatu juróom-ñaari at rek la am loolu ku fi may sa doom ñu ne teel na nabi bi muy takk Aïsatu juróom-ñaari at la am Ababacar Ababacar dencal ko ko ñaari at ñaari at bu tegu ci juróom-ñaari at lu muy doon. juróom-ñeent juróom-ñeent at ci lañ ko koy jébbale mu séyal ko onze onze janvier yàggul ak jëkkëram ju baax jooju bi nabi dee xale boobu ci vingt et quelques ans te dund na soixante trois cent toogul ak góor ci lal parce que nabi noonu na leen nit ku ne kële mujjee takk mooy doon sa jëkkër ci àjjana xam nga foofu sëriñ si dañ ci sow jigéen bu demee àjjana sëyoon ak góor góor ga def ku baax dem àjjana mu sëyaatoon ak keneen kooka dem àjjana seen ñetti jëkkëram yépp ne àjjana mu ne àjjana téere yi dañ ci wax dañ ne ki jëkkoon a takk moom ndax pasewul dee ko jële ñu ne ah ah ki mujjee takk moom ndax buumam la yóbbuwaale mais ki dàq àtte def ne bu boobaa dañuy tànn loo ndaw si sa ñetti jëkkër yaa ngi ku la neex àndal ak moom. yonent bi bu toogaan lu waxtaanam gàtt gàtt mu tudd Xadija am bés mu tudd ko ay situ mer fekk ko fekk ko ci koy suuf waaye sax mu ngi wujjeeg moom xam. ne ko war ngaa bàyyi fu ñu waxtaanee nga tudde xadijatu màgget moo resi lax la woon yàlla jox na la gune yu ndaw yu seen ween taxaw seen la fees del bàyyi fu ñu waxtaan nga tudd soxna nogoy boobu ay su ne ba ma ko waxee gis naa kanam ne bi soppeeku ne du tontuwu ko waaye mun a pat coupé waxtaan pat pat ba mu yàgg mun a ñokket faxasu bàyyi ko fa dugg néegam tëj ko ne na keroog laa gëj a wax ci xadijatu dara ba ni ma dee moo ma gëm ba ma kenn gëmule moo ma wéetee ba ma wéetee moo ma jox aleelam moo jaay bakkanam ngir man moo tax yàlla ku baax la ay surtout bi muy xëy bi- euh, xadijatu bi muy sëy ak Moustapha booba kaar tubaarkàlla mag la bu war a caat la bu doon borom der bu ñuul mais arab li ñuy ëmb borom der bu ñuul du ko ëmb ñoom mën nañoo biir ba soixante dix ans Abdou Khadir Jeylaani bi ko yaayam di ëmb mu ngi ci cent quinze ans waaw siyaada la parce que yàlla ni muy liggéeyee euh, kenn xamu ko kenn waru ci dugg boo gisee mu ne góor ñaar jigéen benn code bi di wax naan góor a jigéen a war a yem dañuy juum parce que ki liggéey góor mooy liggéey jigéen am na sekkale bu mu def ci góor te dafa ko ci jigéen sa doom ji ñaataat la am ci sa ndigg xamula ko keroog ba ko yàlla jëlee ci yow jox ko yaayam trois mois rek la am muy nelaw ba ca beesu te am na matière bu koy muusu ci yow te nekkul ci moom tu vois di nelaw ba set di waccu di yëy ay xeer ñetti weer biir bi ne nii ndeysaan daanaa wax ne jigéeni biir li ci biir bi ku ko ci defoon ku dul yàlla borom du añ waaye ñoo dàq añ ci añ bi mais matière boobu mu defaale ci góor muy muusu man yu moomu di lekkaale deret jooju ba du yokk ci morom moom la ñu def ci jigéen sattaana ma bay na sa boor yi wala naa araam na ne yamb ak jullikaata donte ñun ñëppay naaw di jamaate it so rek sore nañu parce que yamb mën naa indi leen ñetti béyti rek laa bise ñu jox xale yi ñu bégal lu ci Mawlana Habal Abbas si Chérif waaye nag dafa am taalibi bu ma taalibi muy Sidaaj Mali ëpp naa meenal Sidaaj Mali ëpp naa meenal liggéey bu toll nii buñ ko liggéey sa njaboot toog war nañ leen di expliquer ki ngeen yoree kan ki ngeen àndalee kan te li mu wax ci ne bi kenn wax du ñu jëkk ñi du ñu mujj ñi jërëjëf gàmm xalatul nag ndax jàng buñ ko daan def xam-xam a tax ñu di ko wax xale yi sax nangootuñu jàng xam-xam dañuy jàng rek woy yoo xam ne war naa tooy ak xol rek ñu dem waaye billahi xilaasa bi si daaj malik yëgoo sëñ Babacar Sadiq sëñ Ababacar naj lu haaj malik li mu wax te bàyyi ma ko nee na xilaasa bi ku fanaanoo moom ci sa néeg xëy na billahi maa ngi ñëbbee fanaan doo doo kaafara ngi ñi ku ko fanaanoo na fanaan ngaak Moustapha kañ lañ ko yónni quarante ans woon weer seere ramadan benn bés altine une heure vingt loolu lu kañ la am kañ weeru lam waaw fan la nag alaaji gay
وكان بدعا على حب الخلائق إلى أن جاء في الغالب روح القدس لم ينم لينيا إلهي وجزيا أبدا أن محمدا
وكان بدءا ألو بالغلاء بكى إلى أن جاء روح القدس كفا في الغار وهو لم ينمي ألف المسكة والإبادة وخلوة لبنك تكلا ألف المسكة والإبادة والخل ما يموتوا فيه ñetti woy yi ci des laa bëgg àggali moo tax sax nangu ngeen woy ñaari yoon bu kenn woy maa ngi gis ñu bind fi bisimilah rahmaani rahim ne alhamdulilahi rabbil alamin neeti rahmaani rahim te wax waxaat day ñaawal waxi arab comme lu tax yàlla mi nga xam ne moo ëmb yëpp baagi nag birru huula teraangaam juróoy ji mu jox jaam yi ci am ci mën ci xam mooy baa gii ngaa gis siin gii ngay gis sitruhu miim gii ngay gis mooy minal arsi ilal kursi kullaha mulki ba siin mima la ci arab ki xam na ko mooy wax waxaat wax waxaat baaxul bu dee ci woy di amagoo juróom-ñaari bayt nga indiwaat xaafiya dañ naa doon noppil mënu la mais bismillahi rahmani rahim minute nga ne alhamdulilahi rabbil alamin neeti rahmani rahim dama laa xamal nag saar ne rahmani rahim bu mujj bii du bële de bokkul sore nañu sax soote rahmani rahimi jëlee ci bisimi du rahmani rahimi ji ci rabbil alamin de ak yu sori su guddi gi woon sax ma wax leen ko waaye le 31 décembre 1989 rendez-vous fii incha allah ma wax leen ko amuñ dina am incha allah et xoolal rahmaani rahim yi bu njëkk bi xoolal lu ko féete ginnaaw képp bu bu njëkk bi bi muy am dara amul daa dara lu ñu war a yërëm dara ko tooñ ñu war ko jéggal dara ku ñu xéwal mu war a sant amul dara dara ak rahmaan ak rahim la daal bu ne ci mbooy gi rek rahmaan rahim yi ngoog pour dem bii nag mu ngi dellu ci xaali mii ne yii rahmaani mooma jóoroon fee rahmaan ak rahim te amul ku mu ko jox léegi am na nag aalamiina moom lay jox gi yoon rahmaani rahim rahmaani ji kuy nit ci nga ci kaw suuf rahim ji ba alaxira julli di rek ko moom bokk baawulaayi sanaawulaayi maxfirtulaayi bu la neexee baaw birruhu min anwaai birrihi wa anwaai anxaamihi li ibaadihi baa gi bu la neexee seen gi sutruhu yàlla bari sutura yàlla na sutura moom yàlla bari sutura yàlla na sutura ñett ñett yee gën ci moom kuy dund maa xam lu gën ci moom doo ma ko laaj sutura ku ñu suy ñibbi bàyyi la fa xam nga lu gën ci yow yërmande yàlla bu yëpp gor yi dajee nag keroog lu gën nga am ngërëmu yàlla feeg ñu ngi dund yàlla nu am suturaam bu ñu dee yàlla nu am yërmandeem bu ñu taxawee ca kanamam yàlla nu am ngërëmam suturaam bokk na ci léegi maa ngi wax mbay lu ngeen déggul am déet su neexoon yàlla day réglé baat yi ba kenn du mën a wax ndànk fu ñu di déeye kon ma ne bu neexoon mu réglé baat yi yëpp kenn du mën a wax ndànk ñëpp ci kaw la ñuy wax ñëpp boo bëggee wax sa waay loo bëggul ci dégg ci kon nooy def waaye nag bi mu xamee ni sutura am na la wàññi baat digg doomuñ ko suufeel ko ba nga mën a wax mbay lu koy dégg wa jàngaa léeg-léeg wa naara aayatan fa mayow naa aayatan lii sutura si yàlla àgg na ci balaa gor a set mu yëgle ko mbaam ngi dina ñaax ginaar yi sat nodd ko ci nodd xam nga lu tax loolu su fekkoon ni guddi demee yàlla day jékki-jékki rek ne ñoret guddi bër set di nga gis koo xam ne fu ko bër set dafa lay indi du mën a ñibbi de du mën a ñibbi de waaye bu ginaar yi sabee mooy gaaw leen daw gaaw maa ngi ñori malaan mi kat gaaw leen daw يا من أثر الجميلة وصدر قبيعة ولم يؤخذ بجليلة ولم يحتك شكوى ويا عظيم حوف ويا ذلة العشق ويا واسع المخرج ويا باسط يدين برحمتك ويا سامي كل نجوى ويا منتهى كل شقوى ويا كلمة شقي ويا عظيم منك ويا مخير أسرعك ويا متدين بنعم قبل استحقاقها يا رب ويا سيدي ويا مولاي وخا ويا قائد غربتي أتيت ما يا يا لن ينيوك لن ينيوك سرل ما أك الكل دورة دي yonent yàlla Muhammad xaaleen tuuti de ñaari way rek ba des dafa xëy ne saaba yi day tiit naa ñu ne lu tax mu ne dama ñaan yàlla lu ma gàntu ñu ne ko yow mu ne man ñu ne ko Muhammad ñaan nga sa borom lu mu la mayul mu ne ko wa mu ne leen waaw ñu ne ko loo doon ñaan mu ne dama noon yàlla yow ma tubra sharayir bés la bésa ngi boo xam ne lu way nu boon dinaa ko feeñal te kat bu ma koy def maalumil quwatin du ñu am doolay bañ su ma koy def wala naasin du ñu am ku leen wallu mën leen di dimbale ba du ma ko def ku ne foo jaaroon dinaa ko wax te ku ne am nga foo jaar foo bëggul kenn xam ko ku nu yaaj yàlla mu ne bésa ngi boo xam ni tubra sarairu mboot yëpp tey ma fi am ne bi nag ne yàlla dama bëggoon bu boobaa bu penc yi sóob xeet yi sóob ba sama xeet yi sóob nga dimbale ma ba nga rompar ñëpp maag yow ak ñoom rek ñu des fa seen gàcce yem ci man ak yow yàlla bañ na ko déedéet ma def loolu